a boo xam ne doom laa woon am ay waajur yi nga xam ne dama leen respecté ma nekk yaay am ay doom def sama vie professionnelle liggéey nekk ci yoon dama doon àtte wante taxul ma toog ah maa ngi continuer di yëngu ci ay association yeeg yeneen kuréel yu bare bu fekkee nag xar kanamam ñu bëri miinuñu ko turam moom daanaka gën naa siiw lu ko waral moom Dior Fall Sow moom la ñu njëkk a tabb mu nekk soxna procureur de la république fii ci réew mi loolee ca atum 1976 la woon ñeneen ñi bu ñu déggee turu Dior Fall Sow seen xel ci li muy dem moo di mouvement féministe. du topp rek li nga xam ne euh, waa bitim réew ñu koy def tubaab yeeg ak euh, ñeneen ñi du loolu ñun euh, suñu féministe mooy di xeex ba àq ak yelleefu jigéen ñi ñu mën ko am fii. jamono yi muy doon procureur góor ñu bëri ñaanuñu woon janoo ak moom moom jor Fall Sow jàpp ni lu bëri liñ daan wax ci moom umpale ko moo ko waral. ñàkk xam ñàkk am lu leen woo c'est wax loo xam ne xamuñu ko loolu mooy problème bi parce que man awma woon benn problème ak ak góor ñi ah ku ku deful loo xam ne jaaduwul ah man itam danaa def lu ma lu ma yoon euh, sant ma def ko. mu dem retraite loolee gën koo may liberté. ak sañ-sañ ngir mu yëkkati ay kàddu ci wàllum yoon ni muy doxe ci réew mi dama koy xeex tout le temps ah euh, dafa mel exécutif bi dafay dugg ci affaire judiciaire bari na bu bari nga xam ne mu ngi ci biir kon nag loolu itam war nañ ko liggéey war nañ ko seet dañu seet naka la bi di am autonomie indépendance am totale ba nga xam ne législatif bi itam di nekk di def di ay ñoom di changer di nommer ay magistrats yeeg yooyu kooku moom itam liggéey retraité na ci wàllum justice waaye taxu ko toog benn yoon ndax ma ngay wéy di xeex ak ak yelleefu soxna yi ak gone yi rax si dolli mu am yeneen combat Euh, avortement médicalisé bi xam ne Sénégal daf ko ratifié daf ko ratifié nga xam ne nee na man bii dama koy appliqué c'est dañu xool si suñu diine ndax loolu mën na nekk wala mënul nekk c'est ñun suñu problème léegi xam nañ ne mën na nekk. bisub 8 mars ñu jagleel ko soxna yi ci àdduna wërngal këpp waaye jor Fall moom niñ koy faral di féete fii ci réew mi moom gisewu ko noonu. 8 euh, mars dafa war nekk jotaay boo xam ne. jigéen ñi dañuy waxtaan dañuy poser ay problèmes dañuy def bilan seet ndax fu ñu toll lan la ñu war a def lan la mais am na moment yoo xam ne dafay nekk comme folklore so loolu nag baaxul parce que nag booy def lenn loo xam ne yëpp si sa fayda sa fayda bu fekkee ne affaire folklore bi ëpp na rek dañu naan lii c'est passé mu di ki nga xamante ni gëm-gëmam ak gis-gisam da koy faral di biral looloo tax sax mu bind ab téere bi muy wane jaar-jaaram yëpp daanaka rawatina li mu joto liggéey ci wàllum yoon